jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu leen di euh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewlu ci seen bi di Naractu dal leen ak euh, jàmm kii di Sidiki Kaba dal dina yëkkati ay kaddu niki tey dal di xam leen rek ki nga xam ne moo président Macky Sall bu fi jógee mom président Macky Sall moomile ki nga xam ne rek modi di président assemblée nationale mo koy remplacer di ki di Amadou Mam Diop lolé rek la ki nga xam ne Sidiki Kaba dal di xamle ci noné nak mom Sidiki Kaba da xam leen rek bu njiti réew mi démé ba ki nga xam ne nag moo Amadou Mam Diop dal dina koy remplacer processus bi yépp lañuy ñuy wat képp ku bëgg bokk dal di mëna bokk lolé nak nek la nga xam dal dinay jaaxal askan bi lol gannaaw ba nga xamee ne rek dal dina fësal kàddu yoy lé dal di xam ne rek ki nga xamne modi di Amadou mam Diop bu remplacer ki nga xamne rek modi di rew mu Macky Sall processus bi yep lañuy tambali wat lolé jaaxal askan bi jamono ji gannaaw ba nga xamne rek mom Sidiki Kaba dal dinay genn fessel kàddu yoy la rek lolé nek la nga xamne jamono ji dal dinay jaaxal askan wi gannaaw ba nga xamne mom Sidiki Kaba dal dinay fessel kàddu yu ni mel ne mom mi di njitam rew mi bu fi jógee ki di Amadou mam Diop mo koy remplacer te bu ko remplacer processus bi yep lañuy tambali wat ngir ku bëgg dal di mëna bokkat loolee jamono ji nag daal dina jaaxal askan wi gannaaw ba mu fësalee kàddu yu ni mel.